ñeent ci la ñu nekk li mu lamboo mooy abu zeydin dafa fekkee mawsimul hajji dafa fekkee mawsimul hajji léegi nag gélémam dafa dee géléem gi mu waroon mooy hajji dafa dee te amul lu jëndee geneen géléem mu ngi ànd ak lii soxlaam ku ko dimbale ci lum ñibee la ak doom ji itam lay soxlaam ak na gaa ñi jëflante ak soxla boobu loolu mooy maqaama bi maqaama lépp wiir wiir jaari daari kut bu sottee rek taxawaal kut ya rek kut ya rek kut ya rek dégg mu ne xakkaa nettali naa alxaaris su xaaris ibnu hammaamin kay doomi hammaam xaal mu ne nahattu buuroon naa min madinati salaam tukkee Bagdad dama bàyyee ko woon Bagdad li xajjatil islam ngir joxe xaj ak l'islam pour joxe ponk xaj muy ponk ponk li muy ab ponk falamma qadaytu ba ma jeexalee bi awnillah ci ndimbale sama borom ak tafas ak tafas mooy manasikul xaj yi yi nga xam ne moo war a xajkat bi mu ko defee ba mu mat wa tabaxtu tema sàkkoo daganal attiiba gàtt wa rafasa ak booloo xam ne xam naa taxallulul akbar mboolem muharramatul ihram léegi hayatuñ ma ci lenn bi loolu amee saadafa dajjal na mawsimul xëyf bi mawsimul xëyf mooy def na tawaful ifaada xam na taxallulul akbar xanaa léegi dem mi nan pour teew fa ayam mi nan rek moo def lu xam ne dafa am waxtu ràññeeku woo xam ne bu jotee rek dañ ko caa doxal loolu mooy mawsim ni ngi tey haj am na fu mu toll ci at mi fu la lu mel ni gàmmu am na fu mu toll ci at mi fu ràññeeku mawsim la ak lu mel ni màggal Tuuba am na fu mu toll ci at mi fu ràññeeku mawsim la loolu mooy mawsim su ko defee lekk mi nan kon mawsim la saa dafa dajal xëy bi mawsimul xëy bu mi maamaana fay fi jamonoy coorom bi ma toppee manasikul hajj yi ba nga xam ne sa ay fan minan moo def xam ne tahallulul akbar xam na dafa dajjal jamonoy tàngoor fa tasax ma daal di kerlu te daroo si ngir lor bi maa ci loo xam ne yëqee dana mu fekk xarata yi di tàngooru njolloor ba mu ko defee tàngoor wi hëtt bi kese neexul nekk taamu wut lu may lu mel ni ay ay tànt yu may lu mel ni tànt bu may toog

E, maaru xatin ànd ak setti daraaf ñu de way ñëw ma ànd ak daal ñu ñor ñu nite waxat xamiya te moom tàng na wati suraas ba furnay jembaray furnaab jembaray mooy suusi tàng na wa ansa te bempen loo alhajiru njolor gi aynal xirba ba tëb kàkkataar bët bi dafa am sedd bu ci dëkk du ci jox moo tax ñaare foo ko fekkee mu taxaw yaatu rek day jàkkaarloog jant bi fekk sedd boobu sax ci bët bi moom lay dëkk di jaar bu nekk kon kooku su demee ba nga xam ne se tàngoor waa ngi lakk bëtam tàngoor weesu na ab waasa te bém penloo alhajiru njoloor ay na xir baa bëtam kakkataa ak lu ca sedd dëkk dëkk ak lu mu dëkkee dëkkee li ko janandoo jant bi ndax man di ko jaar it ci mbetteel rek xajama bett na xale naa ci ñun foofu rek dal dañu bett seexoon ak góor mutasansion ku daa ji mage genn góor gu mage dal di hagsi yat loohu dana ko topp fatan gune mutaranrihon gu daa ji bëri yëngatu mu ngi ànd ak gune gu sob gu teeri tamit ku ne ku sopp ku teye bi yalloohu dana ko topp fatan gune mutaraarion gudaa ji bëri yëngatu fa sallama dal di nuyoo aseexu góor gi taslima adibin nuyoo nuyoo borom xelmul adab aribin gudaa ji xelu góor gi nuyoo nuyoo hin wu jag kaddu gu rafet gu xaw ba nga xam ne boo déggee ni mu waxee il faut rek xam da jàpp ne nit piir la waxaa war mu waxante mu xaa war a ta xaribin waxanteeg jege ñaale laa xaribin waaye dut ko tumaañ bi mu néew bañ fay ko dafa ñëw mel ni moo sañ ci gi nirul gan gu ak si lu ne fu ne mu dugg lu ne mu wax lu ne mu wax xam nga waxam ak definam dañoo waroo dëgg-dëgg yow nuyoo nga nuyoo hin bu tegtale ne yow xam nga nu ñoo duggee ci nit hmm. nga dem ba ci aw nit doon fa gan mel ne xamoonu nit war a ñu ñu xamoo seen loolu hmm. yow nuyoo nga nuyoo xam nga nu ñuy duggee ci aw nit hmm. dem dugg ci aw nit da doxal doxalin woo xam ne niruwul ne xam nga nit fu mu war a am ci fu war a yem ci comme xamu loolu mooy lan xam loolu xam loolu la def mu ne fa on jim naa hiimulóof ñu bi maa ci li nga xam ne nasara wisaare na ko min simtihi ci ràngam mu ne nuyoo bu rafet bi naw nañ ko torop waaye waxan jim naa hiimu nañu nag minin bi zaatihi ci tàllalum xam la battihi ci njëkk tàllalam waaye naka lay defee faaxin nag te kenn yaatala du loolu jaaxal ñu dana jaaxal ñu daal waxul naa ñi wax la woon ñu ne ko waaye maa anta loo do ci nit mooy nu la nit di jàppe yow loo do anta loo do ana nan lañ lay jàppe fan la la nit di kalaat wax waxin bu teg la ne yaa fi gën a nitee def defin bu teg la yaa fi gën a doxadi nit fan nan lañ lay jàppe yow loo do ci nit loolu yow mooy nan lay nan lañ lay jàppe yow wax nga waxin bu teg la ne kenn gënu laa nitee dëkk bi mu teg la ni yaa ko gën a doxaat yi loolu mooy la wakka wakkee ba wala sa naka ngay tàbbee waman taadante te diisu wut yow nga yow nga ñu fay la kenn waxul la bisimilah naka ngay duggee loolu ci ni fa qaala mu ne ama ana man faafil ku de xaar rekk la li ma doon ngeen laajte man xaar ka rekk la wa taalim isam binte aji sàkku ndimbal laa dama bëgg ku ma dimbale dama loru wa sirru durri te mbóotam sama lor xayru xaafin du ma aji nëbbu te lor la gu xam ne maa gën a ci mënatuma koo sagal ku mu xool xam ne dama dama loru su fekkee li ma doo ci nit moom ngeen a laajte man loolu la lu tax may dugg nag te mayu leen ma ndigal loolu ngeen ma sikkee danaa ko leeral waa mal insiyaabu daal yooru wan nazaru xool ilay jëm ci man so fi man aji tinu la lii ñaan ma kaafin ku aji dañ ku ma xool xam na loolu la wa amal insiyaabu daal yooru gi nag alladi gi nga xam ne xale xaaju na bii ci moom alisiyaabu sikk waaxu gi dugg nag te xam naa moo tilim seen xel yi loolu fa maa huwa déen moom bi ma jaabi muy lu yéeme yéeme xaj na miinuñ ko fu ne waaye da ngeen ko bëgg tumaranke leen ah <laughs> guddi la xëy na miinuñ ko fu ne mojaab mooy lu xéeme ba ëpp mojaab mooy lu xéeme ba ëpp naa daal sëy mojaab mooy lu xéeme lool famaa huwa déet moom hmm. bi mojaabin muy lu xéeme xéeme is ngir maalal kulama warul way tedd yi ñu hmm. hijaabin benn kii lay wax ne yéen ci kiraam yi ngeen te karim ba moom la arab ba taggoon ne lahoo haajibun hmm. an kulli amrin yasiluhu walaysa lahu an taalibin orfi haajibu mu ne diggante moo ku bëgg njëkk lu tuuti tuuti dox seen diggante ku ni yéen da ni man moo tax mu ne yow ngeen fay ma pour man baaraas amatul na waxu dugg rek moo tax xëy leen ko waaye fi ngeen ko teg na xàggu faale ko teg na xàggu faale dëgg dëgg la gis ngir maalal kurama warul way tedd yi min hijaabin benn kiidaay innal karima isa xaadaatahun xadaa bokk na ci karam e, nangu ñu nax la waaw léegi na leen e, gaa ñi jayu nañ ne kaa foo ñu déggee nag <laughs> foo ñu déggee man waxu ñëw nag ne ba saal naa woon ñu laaj ko an nahtada fan la gindee ko ilayna jëm ci ñun ah dégg adnaa tadaafan la gindeeku ilee naa jëm si ñun wa ma ci lan istadalla la tegtaloo alee naa ci ñun ak lan moo ko xamal ne fii ay patron ay ñu solo ñu jar euh, di soxla ñoo fi nekk ba mën a waxu jëm ci ñun ak moo si bi nit ñi di la ko loolu lañ ko laaj fa qaala mu ne inna lil karami ñaal na tab nasran goo xam ne te ni mu dana siiwal dana tasaare mm-hmm. bi yi ci moom nafahaatuhu ay bondim mm-hmm. wa tursidu te dana gindi mm-hmm. ila rawdihi jëm ci dëram fawhaatuhu ay jollim mu ne mbaax ci boppam moo bëri mandarga yuñ koy xamee ba tax fu mu nekk rek du jaar waaw mbaax ci boppam moo bëri mandarga yu koy wane ba tax fu mu nekk rek du jar laajte qad jaala al mubtaxuuna al xayra fii harimin wasailoona ila abwabihi turuqa soyrum naa bi sulma bi muy mu ne booy dem yoon heure bu yoon mu ne yoon waaw mu ne amul yoon amul yoon borom soxla jëm da nga xam fi ngay xaw ba qad jaala almubtaxuuna alxayra fi harimin wasailuuna ila abwabihi turuqa booy seet tagg yim tagg harim loolu ci la bokk moom mooy kooku ngir bosari dox ci burda ne lam jublu woon ca taggam ya moom jubluwu ko ci tagg yonent bi waaye loolu wax na ko ci harim mu ne mbiru harim ma nag loolu la woon démb tey du mu tey parce que lantu ma tegtaloo bi taarruji arsikum ci mbonding seen xañ gu neex xalaat taballuji orfikum ci leeral seen njëkk dég-dég yu rafet yi ma xam ci yéen ci la wóoloo ne soxla mën naa ko joo ci dikkal leen waaw parce que lantu ma tegtaloo bi taarruji arfikum ci mbonding seen xañ gu neex xalaat taballuji orfikum ci wóor ak seen njëkk wa basarani bégalee ma sa dam warandikum bondik seen gàtt ak rand bi husnil munqalabi ci rafet ak jàllarbeku minendikum ne ci kéfiya bi ma ñëwee mandir gi yi ma gis ay dina dëgëral sama yaakaar ne ay day baax wa basarani bégalee ma sa dam warandikum bondik seen gàtt ak rand bi husnil munqalabi ci rafet ak jàllarbeku minendikum tukkee tukkee fiyan bu dee mbax ci boppam mooy màndar bu nekk day neex xam rek mu tax rek ma xam ne yéen ci gaa yi ngeen xaalis ne na fa sabar naawu ñu laaj ko nag yéen a isin ca boobale xandu baa na fii ci xaajoom ñu ne ko waa léegi na lu doon say tànk nag dina sa kaffala ngir nañu warlu bi xaana fii ci dimbaleem ndax itam ñu dimbale ko nag ndax loolu mooy li jaadu wa wadda min arrahmani fadlan wa minnatan alayka isa ma jaa lil orfi taalibu sama borom bu la suturaalee ba am bu foog ne yaa ko tane foog ci mbaa mu xena la jaam booba suturaal gam la suturaal loo war a sante yàlla la ba jël ci dara lu baax a baax mu ne ñun loolu la ñuy jëfu moo tax rek ñu rek ko luy soxla bu baax mu ne inna lii ñi am na ma ma haajo wali fataaya ñaal na suma gune gi mat la ban càkkutéef pour mu gën a xoox mu ne nit nag du ñàkk soxla te mag a gune bokkuñ soxla kon man fajal ma soxla taxul nga fajal suma ndoom si soxla te ku ne nekk <laughs> <laughs> am na soxla day bañ jooka nag nañ jooka waaw loolu la gé ñu ànd waaw loolu la ñuy wax ànd ànd loolu mu ne man sama suma soxla eh, sama xale bi am soxla xaarim ne ñu ne ko fokkul naa ñu wax la wu ñu ne ko e ki lal malaa may ne képp ci ñaari càkku téef yi te mm-hmm. eh, yokko daa xet dina koo fajee mm-hmm. loolu moom buy moom duñu boole incha allah yéen ñëpp seen xol dana sedd wakilaakum ak képp ci yéen ñaar ah, sax fa yàlla tas nay gërëm walakin nal kubra al kubra waaye nag mag la yàlla jiital kon balaa gone di wax wax lañ ko mu ne ajal waaw waaw mu ne wax ngeen dëgg de wa man ginnaaw ko ci buur bi nga xam ne daxaar tàllal na mu ak sabaa juróom-ñaari suuf yi alxurayre way pënd maa ko gi ci yàlla lu bind suuf yi tàllal bañ man cee rek ma wasa ba topp mu buur lil maqaali jëm ci wax kal moom sotti mel ni ku ñu rekki mel ne xaali ci xeew léegi nag bi ñu ko waxee lii nag ba mu xam ne sañ naa wax dafa mel ni kuy xeewante xeewi ko mu ne inni mruun ubdia bi baadal waja wa taabi wa suqati saasiatun yaqsuru anha xababi wa ma maye qardalatun matbuatun min dahabi fa hiilati munsaddatun wa hayrati talabu bi in ittahaltu rajulan xiftu dawaain akabi wa in tahallabtu an liruqati laaqa madhabi fasabrati fi soodin wa abrati fi sababi wa antumu muntajaon raji wa marmat talabi luhaakumu munhallatun wa lan hilaala suhubi wa fi haramin wa fi harabi kon ñu jàng loolu mu ne inni man imru'un waay laa ubbi ha juñ hala gees na waruwaay biye ci moom ci man sama waruwaay moo dee bandal wajaay ci gannaaw taññi wa taabi ak coono parce que ba ma dëkk dafa sori dama ko war dox ba léegi mu dagg de wa suqati sama diggante saasiatun aji sori la yaqsuru dana gàttaanaa walit ko xaba bii sama ñax loo xam ne gëlëm dox na ko dagg dee nag xel daju nit da ko ma dëkk bu sori mun ma dox ba àgg fa bu ma mayee te ne ku te àndul ak man xas la tun kem peppam ndange mat bon atun bëri bu ñu móor min dahabin ci wurus te dara dara lu nit mën a dugal ci ci waruwaay xamu ko de dara di xamu fa hiilati sama pexe Moussa Datoune aji mëdd la ndax loo xalal de def soo xamul dara ah doo xam looy def ba dem ko waxay rëti ma de talent bu dana foyee bi man benn pexe xaw ma ko ku gëlëm la waaye li muy def nii pexe la alhaajatu umul ixtiraa alaaji alaaji tabtiqu tabtiqul yii la machine ak li mu ne nii pexe la iri taxaltu su ma laxasee rajulan di aji léru xibtu maragal dawaaxeen xatta bi sawa bi xaalaku yi te su ma fi jógee ne damay doxal tànk pour ñibbi sama dëkk dee ci àll bi xaj na dajeeg rab mu lekk ma mbaa ma xiif ba ma mar ba mbaa ma dajeeg saay-saay mu rey yëpp xaj bi wayn te bu ma wuutee xani rufqati wëli sett si daqaqat masa bi sama masa te bu xaj bi pare nit ñi nit ñi nit ñi ñu bàyyi ma fi dama am muskila bu mag a mag man naa waral aminul muminin jàpp ma tëj ten bu baax waan ci leen tal mu naa Makka bu farde si ñi bëri jamono Seydina Omar bu ñu ajaan ba pare daaw ku fi dëkkul gënal ni ku fi dëkkul demal ku fi dëkkul gënal ku fi dëkkul demal waaw Seydina Omar jamono bu ñu ajaan ba pare daaw ku fi dëkkul ay wa jox bi dama ñibbi lu mu baax xam nga kuy tukki bu ajam fa jox dafa war a ñibbi yow fu nga nekk fu nga dëkk lëkk yu bëri la fay xaar fii dëkk bu ñëwoon léegi bu ñëwee woon pare na xanaa kon boo fi toogee bu la càng-càng bi toogee loolu mooy lan mu ne loolu laay ñibbi ñu gis ne kaa ji ko fi indi woon ñu jàpp ma tëj kaso xaj na ci waaw wayn taxalal tu bu mu wuutee xam ne lu xati wëli sette di daaxal xan masa bi sama masa fa sabrati suma fokkat fi soo di nekk na ci yëkkatil waabrati sama rongañ fi sababin nekk na ci wàcc te maa ngi joxe fatasaadat safaratuha wa tasawabat habaratuha ne loolu lay dund wa tasaadat safaratuha wa tasawabat habaratuha loolu lay dund dégg nga benn la dégg fa sabrati sama bokkat fi soodi nekk na ci yëkkate wa sabrati sama rongañ fi sababi nekk na ci wàcc waantum yéen nag muntajawoon laaj yéenay forlu waaye aji yaakaar hmm. te wamar ma tala bi te yéenay sànni waaye càkkteef ku ni yéen nag kenn du leen rombee soxla ndax lu tax ay kiraam ngeen wal karimu la tataxattaahu l amal ay ah, kiraam ngeen wal karimu la tataxattaahu l amal luhaakum seeni may munhalatun aji dotteeku la wala hilaala suhubi du càggeen dooteeku niir yi seeni may ni muy jógee ci seeni loxo da dem da dal ci loxoy bindee bi mu waral ndoxam taw ni muy jógee ci kaw ci niir yi da wàcc si ci suuf si gis ko baax a baax wa kaana yahkiika awul muslimun sakiba nam ko waxee ba deema samaan law kaana talqal muhaya yumtiru sahaba waaye waaye dama ko fàtte loolu law kaana talqal muhayya yumtiru saaba mu ne ko boo gisee ñun duñ la mën a mirale xiin dégg bu baax a baax xiin buy sotti ndox dafay dëdd te ndox rek lay joxe mel ni kuy jooy ci joxeem bi yow nag booy joxe sa cër bàyyi day leer te wurus ngay joxe moo tax duñ leen mën a dimbale alhamdulilah alhamdulilah waaye ko waxee nag laa fàtte waaw ba demoon samaan kenn la kenn am na benn adib dañ ko laajoon di ko leeral leer ba demoon samaan ak xariir yi mu ne yi de matul ba demoon yow min kenn nag ba demoon samaan la ku leen di tollale waaye warul leen tollale man na yaakaar naa ba demoon samaan am na yu mu gañee parce que ba demoon samaan maqaamaatam yi du bëri gaaya bi day toog ba ne seet leen ixtira te mu ngeen bëgg ma defal leen ci maqaama tey gaa ñi ñooy seet tam buñ bëgg mu génn ci maqaama bi jox te kii bi ndewutoon noonu ba demoon samaan loolu daan na ko def bu boo génne maqaama gaaya bi daal seet tey tam bu ngeen bëgg ma génne leen ci maqaama gaa yi ñooy wax ne ko bii lañ bëgg mu génne maqaama bi jox mu defar maqaama bi jox leen waaw mënoore boobu ci fànn gi mm-hmm. dëgg xamuñ ko loolu moom mbiram la woon ba dimanche sama loolu daan na ko def loolu moom daan na ko def. da ngay toog nga jël benn xasida juróom fukki way jàng ko ba pare may la mokkal naa ko dalee ci bopp bi jàng bi fa nga jàng ko loolu daan na ko def. loolu ku yéeme la woon loolu ku yéeme la woon waaye moom mën a bind maa góor ne waa xelam mu gaaw. waaw gars yi ne seet leen tey thème bu ngeen bëgg moo tax bu ngeen bëgg. ma defale leen ci maqaama gaañ ñooy wax ne ko tey mu demee nangam lañ bëgg mu defal maqaama bi jox la yéen bu baax boo demee ci maqaama tamit boo ko liir da nga yéemu da nga yéemu lool lool lool lool comme noonu ci bu kaa mosuma ko gis ah da abul faraas kandari bi mu dafee di wax waxi koya koya da ko ci gis te loolu amul ci maqaama bi dafay di nekk benn dox di wax yu toppewul xamul fii maqaama madiriya maqaama bu neex la mooy fi mu doon xaaree fonde mi dañ topp ak dàll yi di ko dóor waaw maqaamaat yéeme am na ko maqaamaat yi dañuy gàtt wa safrati sama bokkat fii sama di nekk na ci yëkkateeku wa amrati sama ronge tanaa bu dana foxee biye ci man waatum yéen nag mun tajamoon raaj yéenay forlu aji yaakaar wa ma talabi yéenay sànni waay càkkutéef loxaakum seeni may mun halatun aji dotteeku la walan hilaala suhubi du càggeen dotteeku niir yi wajarukum seen fi xaramin nekk na ci seen dëkkandoo dafa nekk ci làqukaay bu mucc wamrukum seen alal ju bari fii harabin nekk na ci rekkeebu seen mu ngi dem ci nit ñi maa laata mosul aji tiit bi kum fa xaafoo muy ragal naa ba nuwa bi ba ñu xew-xewi jamono yi wala ta dara mosul sàkku amilun aji yaakaar xibaakum seeni may fa maa ko biyata maye su kenn mosu leen taw soxla te ba fajuwul lépp lu baax rek dajale ngeen tuuti moo des ci wéy soo boo ñu ko lépp lu baax rek eh, mu ngi ci yéen loolu la nidu lam nastaqid bika min musnin siwa lasaqin mu ne ko niir ki ñuy naw lenn képp la am te xamula ko mooy sedd bi mooy jàppee yaram yi waaye guy njëriñ moom sallaw ni mu ko xamee nga ko xamee de lam nastaqid bika min musnin siwa lasaqin géej gi ñuy naw xanaa xenu gaal ak xam ngelaw loo bëri moo ca ne ca moom waaye su ko mooyee jëriñ tab ga xam nga ko wala min al bahri xayra wa sufuni gaynde ki ñuy wax xanaa ñaawaay bi rek waaye njàmbaar gi moom jël nga ko wala min al laysi illa mandarihi leneen lu mën a doon lam baaxle wut nga ko baxee wala siwa siwa ma laysa bil xasani <laughs> loolu la ko wax loolu la ko wax de waaw soxna yi lu ne la ñuy wax ñoo daq a wax ku ne lam nastaqid bika min muslin siwa lasaqim wala min al bahri gayra rihi wa subuli wala min al laysi illa qubha mantarihi wala siwa siwa ma laysa bil xasani gis nga ko bu baax tey bil mutanabi moo ko wax di tagg xasiid bu rafet rafet la ci diwaan boo demee da nga fekk leen mu tagg nit ba àgg ci baalaxal boo xam ne nit ñi duñ fay àgg foofu muy taggee maxiis ak i bokkam naan walaw yemmam tëhum fil hasri taj doo la atawka alladi sallaw wa saamu mu ne seen tab xàgg na ci yawmal qiyaama boole ñaari ñu may la seen tiyaabu yu yu koor yi xanaa xeewu julli a xeewu julli a la waraale de wax na ko de wax na ko ada xeewu julli a de mu ne fanaati foo na ngeen wàññeeku fi xisati yi ca sama njàngat déglu li ma leen wax waxtu na te ngeen rafetal mun xala bi sama jàll be ko wàññi waaye bu ngeen ba xam ngeen def di xam rek wala balal suuf bu ngeen nag toxoonee sa ti sama dundu fii matam yi ci sama lekk wa masrab yi ak sama naan su ngeen xamoon li muy wéyee la saakum kon naqadi leen duree sama lor allah bi gi nga xam ne ak la ma ne jébbale na ma bërëb yi jaaxar yi kon mbir mi daan na daw seen kii walaw xabartum te bu ngeen xamoon xasab yi sama xasab mooy sama juddu wanasa bi ak sama askan ak yàq bu baax bi ma bokk wa masab yi ak sama masab ngeen xam diina ni ma ko xamee ak ni ma ko toppatooyee wa maa li nga xam ne xawat làq na ko maarifati sama xam mi na looloo mi ci xam-xam ak nu xam yi ni koy tànnee ak ni nga xamee noonu laa dajalee xam-xam yu jafe am su ngeen xamoon loolu lamaa taraktum kon du kon da ngeen xam ne rek sonn la bi xam-xam moo ko def ndax xam-xam bu neexee ci yow te comme bi kut ci sa loxo da ngay parce que xam ne lii saltale nga dee te bu bëri yoo dul daje loolu la ñu nekk te boo bëri yooyu teggi dafay bëri yoo dul daje suba coono moo fay nekk hmm. kon da ngeen xam ne coono bi yëpp nii fa layta an nii xellante woon man hmm. lam akun du ma nekk au def danaam faleef ma hmm. sadiyal adami weenu xam-xam su fekkoon nit mooy tàggal boppam konoon leneen lay tàgg waaye ni ma am nii parce que coono lay jëlee ba xaddaa na ma suuf ma woo gàppam waa aqar yi na ma fii nii teew abi bay tax kenn loolu kenn du ak ñeent abu saydin gars wax nañ ko wax na soxlaam su ko defee kuy laaj moom kàddu gu mën a doon ama ku ko gënal gannaaw day laaj su waxee ba pare moom lu gën ci lu muy dégg bu dul am rek amako ko gënal xaalis ne fa xul naa ñi wax la woo ñaal góor gi ba mu ko dee eh, yaa ngi ñëw ci kanam insha allah di daan tëdd burda bi waaw fa xul naa ñi wax la woo ñaal góor gi boo dul sori mën nga dem ci kanam suut rek di ñëw amma anta daal yow e eh, fa qasarahat wóoral na abiyaatuka say way bi faqatika ci sa ñàkk waxata bi naqatika ak alakuk sa gëlëm di ak sa gëlëm wasa numtiika xes nañu la waral maalu xam ne yuwasiluka dana mu la jotal ila baladika jëm ci sa dëkk fama ana lan ma arabat wala dik mooy haajoy sa doom ñu ne ko waaye daal li nga wax lépp daal minal bidaya ila nihaya mooy gëlëm gi la indi woon deena dañ la huutal loo ñibee xale bi moom lu mu bëgg luñ ko mën a wax lu dul loolu du ko sax dañ la wutal loo ñëwee xale bi moom lu mu bëgg fa wax moom góor gi la wa doom ji ne ko xum jogal yaa bone yow sama ndoom la wa gune gi ne ko jogal yaa bone yow sama ndoom kama xaama ni ki joge woon abooka sa baay jogal li nga bëgg nga waxal ko sa bopp waxoo te nga tudd bi maa ci li nga xam ne fii nafsika nekk na ci sa xel mi li nga den ci sa xel mi yaa ko xam laa furda yàlla bu ko gees foo ko sa gémmiñ mooy yàlla bul mefre arab dafay waxee fa nahaada gune gi dal di buur nu mu batali buur ak li biraasi jëm ci léwtoo dal di buur buur ku ñeme lim nekk mel ni jàmbaar juy léwtoo wan salata mu génne lisaanan lammiñ kalaat bi ju mel ni jaasi ju daa ji ñëw ak juraas jëri ju ñu bocc mu préparé wax mel ni ki bëgg a jam ni muy génne jaasi waam saa mu xaram yaqul mu tàmbali de wéy naan saadatan fil maali mabanin masida wa man ida naaba xatbun xaama bi dafel makiida wa man yahunu alayhim badul kunuuzil atiida uridu minkum sawaan wa jardaxan wa asiida fa in xalaa fa ruqaaqun bihi tuwaara sahiida aw lam yakun za walasa fa samatun min sarida fa in taadarna turran fa ajwatun wa nahida fa ahdiru ma tasanna wala sadan min qadida wa rawiju fa nafsi lima yaruju murida wa saadu la budda minhu li rihlatin li baida wa antumu xayru ahtin turawna inda sadida aydikum kulla yawmin laha ayadin jadida warahukum wasilatun samla silatil mufida wa bugyati fi matawi ma tarfiduna sayida wa fiya ajrun wa oqbatan fi sikarbi hamida wali nataiji fikrin yafdana kulla qasida mu ne gone gi lii la wax yaa saadatan ay yéen ay sang lahum ñun ñi xaal na leen mabaanin ay tabax masidatun yéen yu yëkkati fil mahaali ci kowe yi yéen sang yi nga xam ne lépp lu ñoo nawee ni ràññeeku ngeen waaw waman tey ñi nga xam ne isaa naa ba su bañalee xat bun mbambare mooy mbir mu diir xamoo ñu jo ñu taxaw bi tamit ma kéré di ci jañ pexeem yéen ñi nga xam ne ku lu diis daal ngeen taxaw ci ci teggi waman yi ñi nga xam ne isaa naa bu bañalee xat bun mbambare mooy mbir mu diis xaamo ñu taxaw bi tamit ma kéré di ci jañ pexe ku mbir mu dis dal ngeen taxaw ci dindi ko waman tey ñi nga xam ne yëfoonu dana yomba alayhim ci ñoom badlul kunuusi joxe ay ndàmb alantiira yéen xadu yéen ñi nga xam ne lu ngeen hut lu baax baax ak ngeen xoli mayee ko yéen lay waxat uriidu danaa nam minkum ci yéen siwa an yàpp wuñu wàjji yàpp wuñ lakk ba mu ñor dee bëgg naa ko parce que damaa xiif ñu jox ma ma lekk boobu wa jardaqan ak jardaq xeetu ñam la xawma ko waa si da tan ak si ci seen togg yi la xaw ko man daal ku ma jox yàpp wuñ lakk bam ñor nga jox ma asida jox ma jadda façon ñam yu laa bëgg e fayin xalaa su fekkee seer na su fekkee ne loolu ma fa seer faru xaaxun mburu mu xam ne tuwaara def na muuree asahidatu xobu lem bii ci moom kon mburu bu ànd ak lem bopp su ma ko amee bëgg naa waaw fayin xalaa bu seeree faru xaaxun mburu xeetu mburu la tuwaaraa bu mu def nag muuree as-shahidatu qablan bii ci moom aw lam yakun wala amul boog saa lii wala saa wala boog ñaari mu wax lenn ci mënu ci am kon fa sabaatun benn rek la soxla min saridatin ci sarid kon ñam boobu ñu naan sarid moom laa bëgg ngeen jox ma ma lekk ba suur sarid ñam la bu xam ne ñu ngi koy liggéeyee ci yàpp ak mburu waaye liggéeyin wan a xamu wax dëgg yàlla xamu mal xubsu taqdimuhu bi lahmin fa zaaka amanatillahi saridu waaw mu ne dafa am nooy boole mburu yàpp muy ñam mi ñuy wax sarid ida mal xubsu taqdimuhu bi lahmin fa zaaka amanatillahi saridu ba mu xàgg rek dégg nga fa adiroo na ngeen teewal fa in taxa na bu ñu ngàntaloo nag turan bi muñ di mboole su fekkee lenn mënu ci am kon faaj watun tàndal ma ju rafet boobu ma am ko bopp wa nahidatun ak nahida ci seen togg yi la fa hadiroo na ngeen teewal maatasan naa lu jàppandi da ngeen di teewal li jàppandi mu gaaw a gaaw wala satan doonte dogit la lu tuuti la min qadidatin ci seelit qadida mooy yàppu wow doonte seeli yàpp yoo la sax ba tey baax na anam nu maratin min quraysin taakulul qadida ba ngay jàng ci hadis ba waaw ah, ba mu jàppee nit ki ci ba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ jàppee nit ki ca xare ba indil ko ko waa ji tiit ba bi naan dalal ànd ak sa àndal ak sa sabo dalaleel hawwin ni nga def nii sa bopp jaru ko anabnu maratin min quraysin taakulu lqadida ah jigéen ju tudd Amina bokk ci Quraysin da lekk seeni yàpp yi nga xam daan lekk seeni yàpp yi wow yi nga xam mooy sama yaay nit laa ni yow dafa ndànk dafa ndànk dafa ndànk kilifa day dànku mais soo bàyyee ni ñii nang ñii rek di wax lu leen neex mu noonu kilifa day dànku so loolu ku baax wax loolu kilifa day dànku ay te bàyyi ni ñuy wax rek ah bu yàggee ñu ne yàlla nga rek loolu baax waaw xadida bi mooy loolu walaw saxan doonte dogit la min xadidatin ci seeri wara bi joohu te ngeen teewal ko te nag na gaawu sarax dafa war a gaaw laa tax di sanna bi maslin waja harifatin fal birru yax di soo maslun walayya fanaf si sama bakkan muridatun aji namm la lima lu xam ne roju dana teew man samay mbir dafa jàmbu moo tax dama bokkuma gawe wasaadu yóbbal itam nag ah la bu dee jaas lii ñu àll ma minu ci moom rexlatin ngir laxas lii ñu àll ma bañ datin mu daa sori te itam nag xam nga fu ma dëkk jegewul subaana daa soxla lu ma yóbbuloo ci yoon wi waantum yéen nag xëy roxatin yéen a gën ci mbooloo turam ni ñuy def leen oo inda sori da ti fa tàkka salaw ku nit de hooyee jaaxle e budul yéen yéen a ko gën ndax li ngeen man ñu bari mënuñu ko te jom ji jiyéen ci yéen rek la nekk ay dikum seeni may kulla yawmin ci bis bu la ay dikum seeni loxo kulla yawmin ci bis bu ne la haa ñaxal na leen ayadin ay may jëli da suñu rëwee xeese jëriñoon ngeen ni démb lu tey ngeen jëriñu ko tey joxe woon ngeen lii tey du tey démb du tey tey ngeen joxe leneen heure bu rek ay njëriñ yu bees mu ngi dootee ko ci yéen da ci nit ñi waraahukum seen i téem la waasilaatun way jokkalañ sam la silaati mboolooy may yi almufidati da way jëriñee te itam nag jox nit lu ko amal njëriñ mooy seen mbir waaw jox nit lu ko amal seen mbir baax na ci nag na ci baax na baax na ay boo ko joxee lu mën ti jëriñoo da koy sonal rek wa buxyati sama lu tuuti la fii maqawima ci taxañ taxañ li nga xam ne tar fi doone yeneen koo konte te man li ma bëgg du dara ci li ngeen di defal ni waaw boo buxyetee sama càkkuteef sahidatun lu tuuti la fii maqawima ci taxañu waaye laala tar fi doone yeneen yeneen koy konte fi te nekk na ci man nag ajrun yool te sax man jaamab yàlla bu loru laa ku ñoo sàkkoo ci man tiyaabo la wa oqbatam fi sikar bi mu jég yëral sama njàqare xamidatun lu ñu sant la ndax mbokk bu fekkee da nga ko dindil njàqare ci jaaxley àddina sama borom tabaraka wa taala dana la dindil njàqare ci jaaxle yawmal qiyaama da itam jaamam yàlla boo koy dimbale sama borom da lay dimbale walii te ñaxal na ma nataa'iju fikrin ay ngir tey xalaat yow dax na yooyu danañu gàcceel kulla xasidatin bépp xasida te bokkul ak ngëneel li yore muy adab bi qaala al haaris ibnu hammam haaris ne na falamma raayna ba ñu gisee asibla xalog gi mooy xale bi yusbihu muy góor gi gune gi ñu ni de lool arxal naa laxasal nañu alwaay alwaalida bàyyi ji bàyyi jox nañ ko lu mu war ñibbi wa naa ñu jox yóbbal alwalada doom ji fa qabala ñu tollalee asuna njëkkali bi sugrin ci cant goo xam ne nasara firi nañ ardiyat ay lambaayam nasara nasara firi nañ ardiyat ay lambaayam waa dayaa te ñu joxe bi ci cant googu diyat di ay njëkk bañ leen defalee lii ñoom sant nañ ñoo sant sant ba mën nañoo wax ne defee la dara ndax lu ñu leen jox ci xaalo seen rafet wecc na ko ak ñaan yu baax wala ma sama ba ñu dogoo nag xalal intilaaqi ci boyu bañ dogoo ci dem nag waa xadaa te ñu fas li rexlati ngir laxas xubbukan ay buumi sippu bañ dogoo ci dem ba qultu wax li cheikh yi Ah, dama wax góor gi nee ko mhm. ah, hal daaxat ndax nitu naa xeddatunaa suñu dëhër xeddatan orko bin dëhëlu orko naka mu far nañ la ci kilal maramay ni sa yuquda mhm. wa kilakuma sawfa yaxda naka mu far nañ la mhm. aw wala hal baqiya des na xaajatun benn xaaja fi nafsi yaquba ci xelam yaqub ci bakkanu yaqub wala soxla bi nga ci doon lana lay qaala mu ne haasa lillahi déedéet wakala déedéet bat li fi nekk jël la màgg na maarufukum seen njëkk seen teraanga wa jëllaa te mu feeñal seen baax teraanga jigéen ma defal nii li muy teg la mooy yéen ay kiram dëgg ngeen xaaris ne fa xultuma wax la ma ne ko kon ko dinnaa faye ñi kama dinnaa ko ñu la bale ma ne ko addina moom deflante moo ci ne nit ki dalay soxla ci lii mhm. nga soxla ko ci lële comme nag li ñuy soxlaa doon ñun defal nañ la ko mhm. ñun am na la soxlaa defal ñu mhm. annaasu linnaasi min badwin wa min xadarin baadun li baadin wa in lam yasmoro xadamu nit ñi ak foo mën dem te pay ba ak ca xàll seen mbir mu ngee doxee ci kenn ku ne di morom waaw ci la mbir yi doxee waaw nit ñi ak foo mën a def mbir mu ngee doxe ci kenn ku ne di morom waaw ko fa faree nga faree ko fa fa nga soxla ku la fa faree mu faree la fa mbiram lépp mën a jag sa mbir lépp mën a ndax la nga mënut ci sa mbir moom mu ngi koy doxal la mënut ci mbiram yaa ngi koy doxal rafetlu bu a baax noonu la mbir yi war a demee annaasu linnaasi min badwin wa min hadarin nit ci nit ci àll bi ci pay bi li baadin wa in lam yasunroo xadabu ñenn ñi il faut surgaay ñeneen ñi lay doon kenn ku ne surga morom ma lay doon ma ne gannaaw loolu la arab ba wax ah mbir yi def lante fi nekk te defal nañ la ay fa dinnaa fay ñu kama dinnaa ka ni ñu la lebale mhm. wa afit naa nga jëriñ ñu kama afat naa ka ni ñu la jëriñ mhm. ay na duway la tu ana kër sa ana boo dëkkam faqat malakat naa moom nañu suy mhm. ka jël ay ra tundal ma parce que ñun xamuñu la fa tanafasa mu nokkat tanafusa man nokkat ak ku xam ne it dakkara fàttale ko na mu xawtaan na waa ay dëkkam mu dal di nokkat nokkati nu ku fàttaliku dëkkam xel mu sori lool waaw sada mu sadd mu commencé di wëy ku soyee ko te himmat yu ndax si mu dana gàllankoor dana kaleel lisaane wa làmmiñam mu ngi wëy waaye daan nga xawul mën a wax mu ne sarooju daar yi walakin kayfa sabilu ilayha waqad anaaxal aadi biha wa ahnaw alayha fa wallati sirtu abghi hatta dunubi ladayha ma raqa tarfiya shay'un muhibtu an tarafiha mu ne sarooju saroj daar yi mooy sama kër walakin waaye nag kayfa sabil naka yoon ilayha jëm ci saroj saroj laa dëkk mënu fay dem naka la fay demee waqad anaaxa te yësal na alhaadi noon yi biyaa ci sarooj waax naw te ñu xalak xale yaa ci sarooj noonu songa nañ ko nangu dëkk ba rappal wala tii giñ naa ci borom kaaba gi nga xam ne surtout dox naa ab xëy da sàkku xatta suno bi sittik ay e bàkkaar la dayaa fa mm-hmm. may giñ ci yàlla mi nga xam ne mooy borom alkaabatul musarrafa mm-hmm. xam ne dama faa dem léegi bëgg yàlla sippil ma samay bakkaar mm-hmm. ne maaraaq yéemu loo hut mm-hmm. tarfiya sama gis sey un dara mm-hmm. mun xibtu waxtu wa ma fàddoo an tarafaya wala ñaari peti soro bi ma ko joxee gannaaw ba léegi dara dara dara dara lu ma yéem gisuma ko déedéet wala taba ayniya mut faraftuhum sey un yaruqul ayna min hada al wara وهداني ko loolu lay dund waaw wala tabaayniya mut faaraqtuhum shay'un ayna min hadal wara suma rawraqa topp xooj aynaaw ñaari bëtam bi dumuwaxee ci rongañ wa adanal xamle ma daame woo ay ndeem bi lu ci yol mu commencé jooy fa kariha musib ay yastaw kifaha mm-hmm. ba mu dottit ko bëggu fee jooy mm-hmm. wala mu yamlik moomul mm-hmm. ayu kaf kifaha ba mu pegat leen te mënul téye rongañ yi dafa tàmbali wéy rek commencé jooy bëggu fee jooy waaye mënul wéy te du jooy faqataa mu dagg insaadahu tag saddam al mustaxla bëri bu ñu neex loo xam na doyaluñ wante moom fii la ko xemal waqataa mu dagg imsaadahu saddam al mustaxla ba de bu ñu neexlu waaw jasa te mu gàttal fil wadaayi ci tàggoo wala te mu joxe gannaaw baax na mu dëdd baax na jànkatu doone